où on considère que le président de la République warul présenter et se cherche des gens yoo xam ne moom la war a def face à face. d'accord loolu dina donc c'est normal que les gens craignent un peu que la justice soit instrumentalisée. loolu nañ si ñëwaat léegi dafa am coow bu jib diggante Ousmane Sonko ak Barthélémy te ñoom ñaar bu nu waxee seen diggante faa yow ñu tudd la si parce que yow sax naroon nga dem au tribunal avec Barthélémy Diaz ay xibaar jënd na ko Ousmane Sonko moo leen jubóole. est-ce que mën nga ñëwaat sur les coulisses de la réconciliation bi nga xam te ni de la médiation bi nga xam ne Ousmane Sonko moom moo ko mënee entre yow ak Barthélémy Diaz. bon euh, médiation amoon na ci effectivement Ousmane Sonko s'est levé pour éviter à Barthélémy Diaz euh, euh, dans une affaire de diffamation pour ñu bañ ko condamner parce que dans cette affaire-là c'était flagrant établi que Barthélémy avait euh, commis une erreur monumentale parce que élément yu mu doon exhiber ci devant les écrans télévision ou devant Euh, c'était pas de bons documents parce que bu ñu confondre lu ñuy naan euh, état d'exécution du budget ak les états financiers. waaw moom état d'exécution du budget xam nga moom nee moom jàngul jàng bu. bu non non mais jàng euh, jàngul jàng yoo xam ni. wala transport quoi. dans ce domaine-là on parle de droit. boo ñëwee bëgg accuser nit ki da koy teg ci loo xam ni c'est clair net mooy ce qui devait être. Mm. mais il dit des choses yoo xam ni xamu ko woon mais son avocat l'a rattrapé à la dernière minute li ngay wane ni c'est pas les états financiers te lii opération boobu def foncière c'était dans les états financiers mm-hmm. mu gis ni daal def na erreur Ousmane Sonko a volé au secours et puis euh, moi j'ai considéré que nit bu la ay jullit lu ñoo ah, la ne dama juum yëfi et je considère d'ailleurs que dans l'effort de Prodac aussi bu fekkoon Ousmane Sonko neen dama juum IGE laa waxoon mais nii nii nii wax ko publiquement parce que l'a dit en avant publiquement que accusation bu de voir dans un live retirer ses propos mais je retire mes propos. Mhm. je pense que cette affaire ne serait pas là mais bon. il y a même certaines infos yu woon ne bokkoon na ci condition yu ko mais loolu vérifié guma ko. mais mm, certainement certainement je n'ai pas ces informations mais certainement. dégg naa ñu ne te condition yooyu bokkoon na si que publiquement extra mais léegi. Mm. kon mën nañu wax ne est-ce que tamit mbir boobu noonu bu demoon tribinal objectivement est-ce que tamit mënoon na àgg ba. mu yàq éligibilité wu euh, euh, kii Barthélémy Dias. Eh, bien sûr bien sûr bu ñu fekkee ne ay histoire de Prodac moo tax aujourd'hui wax naa juum ci IG ak IGF ak yenn affaire moo tax nit ki ñu bëgg ko rendre éligible. parce que moom il semblait tenir sur du solide ah. kan bi muy wax lool waaw il semblait. xam nga la semblance moom attention l'apparence et la réalité <laughs> mais la réalité l'a rattrapé parce que yow tam bi nga ñëwee fii woon nga ma ay kayit c'est vrai bi nga man je man je suis clair kenn musuma démentir lu may wax nii ngoon ay kayit lu may gis nga bu fekkoon suba am na yoo xam ne def naa ko dans ce pays là def naa ñëw toog fii di wax ak yow dem man am na yoo xam ne accusé nañu ko fii j'ai pas fait de bruit waaw yow ak l'ex-DG l'ex-DG j'ai constitué j'ai <laughs> mon confrère Moussa Sarr qui s'occupe de demee dossiers mais samay procès yëpp se sont très bien passés on peut gagner contre l'État non boobu nag ce n'était pas contre l'État c'était contre ce prédécesseur non non bi ngay wax boobu boobu beneen la du benn audience la contre l'État donc boobu c'est effectivement contre mon qui est magistrat oui qui est magistrat oui waaw ah, magistrat boo xam ne day politique mais dafa nekk en disponibilité dafa mel mais disponibilité mooy la soo jëlee disponibilité donc tu n'es plus magistrat loolu nga ma bëgg wax. non non donc boobu mooy wax affaire yi il était magistrat ou n'était pas magistrat. il était directeur il était donc na assumé waaye bu ma ko ne ciix yóbbu ko fële <laughs> dafa génn benn paañ woddu ne je sama robe bi tu ne l'es plus alors que Téliko ñu koy jàpp di ko yóbbu di ko jugé alors que c'est un magistrat en exercice. magistrat buy politique tu n'es plus impar tu mm-hmm. plus impartial. man daal magistrat buy politique bu duggaatee ci audience moo xam ne man je suis avocat je le récuse. léegi clash bi am diggante Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz Ousmane Sonko waa am na dans l'affaire Prodac ah am na benn kilifa bu président Macky Sall recevoir ne ko en première instance dafa rëcc waaye dina rattrapé en appel Barthélémy Diaz jàpp ne moom lay waxal mu tontu ba affaire bi àgg fu mu àgg yow ban regard ngay porté si loolu. bon xam nga ce sont waa loolu tamit je pense que c'est quelque chose à à rappeler Mamadou man j'ai été à Yewwi et tant que membre fondateur mhm. li ma doon wax yëpp ñëw naa fii ne leen Yewwi n'existe plus mhm. ngeen ma comment ça je pense que les poses les les les les les choses son claires maintenant mhm. euh, loo xam ne teguñu ko ci yoon teguñu ko si dëgg mënul wéy maintenant <laughs> ñi nga xam ne ñoo doon xeex contre Euh, maître Moussa Diop ci législative yi bi dindi toutes ces listes sànn ci poubelle bi ñu déggoo ko mooy taxawu ak euh, ak Pastef tey ñoom ñooy rayante seen biir ba à la place de l'obélisque vous avez loolu naa si ñëwaat sa incident bi. loolu nag xam loolu ça veut de choses. oui ça si dëgg lay lu anormalul. lu lu lu lu loo xam ne c'est pas anormal c'est pas normal. damay mm-hmm. ñëw ne la quant il faut le dire. wax ko quand j'ai considéré un moment donné fekk ñëpp di raser les murs wala di protéger seen ay fauteuils sama président Macky Sall suñu de troisième mandat je l'ai dit de l'intérieur c'est ouais. m'a valu le limogeage ouais. il y a des gens qui ont attendu pour être aujourd'hui contre le troisième mandat ou di ko dire officiellement mais mhm. moment boobu ñu leen ne bu leen ci wax duñ ko wax or li ma boole ak président Macky Sall lenn rek c'était le troisième mandat parce que du sama bilan du sama liggéey mhm. du détournement du malversation six ans à ma fa ak lu mu mënti nekk di ko wax dëgg moom tamit di la déglu mais les faucons autour di ko pousser sur certaines choses yoo xam ni daax ko daax ko man daax ko sama ngor lay dee c'est ça aussi la réalité donc loolu nga xam ne daal euh, am na effectivement euh, dans cette affaire la bi nga may wax léegi. Mm-hmm. moi je considère que euh, nañ ko gérer quoi. nga foog ne ba léegi ni c'est gérable. parce que ba léegi nii dafa mel nii. waa Pastef ak waa Yewwi at euh, waa taxaw demeewul noonu surtout l'incident qui s'est passé à la mm. place de la nation vendredi dernier yaa ngi fóon ban réaction nga si am xam nga tubaab nee na les trains qui arrivent à l'heure euh, n'attirent pas l'attention ouais waaye biir bu ñëw retard rek coow li bëri mm-hmm. xam nga train bu arrivé à l'heure à la place de l'obélisque le 12 mai c'est que manifestation bu bu mucc ayib bu ouais yow gis naa la fa je pense qu'on on s'est mosu fa am yu mel noonu ba déferler vers euh, la RTS. ba nga jëndee sa mbubu bu yàgg ba mais boobu dinañ si ñëwaat. waaw mbubu bi dafa am ñu ko comprendre woon lu ci nekk rek. mais je pense qu'ils ont compris. Ouais. Euh, maintenant leeral nga ko parce que euh, moment pas compris le combat. Mhm. mais ce qui est important mooy que le F24 je salue vraiment la taxawaayu Mamadou Mbodj nga xam ne tey société civile. le coordonnateur moom moo koy coordonné. Mhm. et je me suis battu pour que ce soit un incolore politique mu je me suis battu pour que les réunions se tiennent même en dehors des permanences des politiques. Mm -hmm. je pense que loolu boobu ñu koy lancé d'ailleurs ça a été tenu en endroit neutre et puis deuxième chose. waaw c'est que coordonné par les euh, que xeexu ñële. Mhm. dem ba di defar di nar a ternir image F24. waaw xeex seen xeex quoi mais bu ñu ñëw ba F24 ñu ko def ils ont les Yewwi nañu xeex ci biir Yewwi. mais nga foog ne xajamalul tuuti parce que ça fay yàq xew mi ah, am na sax ay des intervenants qui n'ont pas pu la parole à cause de ça. comme que tu as dit il a a failli. waaw ça terni <laughs> c'est différent Daouda Gueye bon <laughs> man daal ñëw naa délivrer sama message. <laughs> Uh-huh. comme ni nga ko rappelé aussi euh, en 2012 27 euh, janvier 2012 mooy le conseil constitutionnel. jour mu dalee ne président Wade dana nekk candidat. Uh-huh. Euh, ko respecté. jour boobu j'étais habillé effectivement en tenue jaune noir. qui ressemble un Dalton. parce que c'était symbolique pour dire qu'on était prêt à aller en prison. ba ma ko génnaate gars yi naan mais lii lu mu doon affaire yooyu mënuñu woon comprendre mais je pense qu'ils ont compris aujourd'hui que sama taxawaayu démb ak sama taxawaayu tey benn la malgré que ñun ñoo gagné woon en 2012 la coalition Macky 2012 ñoo gagné élection yi mhm. te je ne peux pas comprendre nag ñi nga xam dañoo xeex contre troisième mandat <laughs> ne rakkaay ñaar la ñëw tey di douter war nañ teg ñett ou pas subhanallah donc ngay déggan <laughs> <laughs> waaw julli moom ku si juum moom di nga dégg si waaw ah mais est-ce ah que njuumteel si julli la parce que dafa mel ni bi mhm. am na ay interprétation ban n ngay wax bi ñu révisé en 2016 constitution bu ñu révisé en article deux article 27 bi constitution bu ñu révisé en 2016 ban année la selon toi Diallo 2001 2001 mais dégg nga ay avocat yu jóg di naan constitution de 2016 j'ai entendu ma sœur Aïssata Tall Sall parle de constitution de 2016 ça n'existe pas waaw da réviser woon moom de pense que sama sœur la mais mun vraiment yenn saa yi déception la u Sénégal de l'entendre comme temps en tant qu'avocate ak fu mu jaar yëpp j'ai beaucoup de respect pour elle mais bu néew mu naree taal seen intérêt personnel yi di nga ko war a def de côté man Macky Sall maa ko dugal Podor ce n'est pas quelqu'un d'autre ils le savent moment boobu ils étaient en face ñoom ñëpp donc bu dëgg jotee il faut avoir osé il faut oser le dire constitution Sénégal bi remplacé constitution 1963 nga xam ne si constitution 1963 le président euh, Ablaye Wade gagné élection yi. oui ba mu ko gagné dafa organiser référendum référendum ba moo juddloo constitution constitution boobu. Mhm. ñaari chose la benn bi mooy le nombre de mandats fa la ñu limiter le nombre de mandats. dina mhm. ne benn la benn yoon li nga ko mën a euh, renouveler. muy ñaar réforme bi am 2016 changé wul le principe du nombre. dafa ne nit ku nekk ak ay mu mënu fi def lu raw ñaari mandat yuy teg la ko. mais sa concernait la dure du mandat. kooku c'est pas la durée c'est le nombre ñaari rakkaa la nombre de mandat la durée du mandat mooy jëlee ko cinq sept ko cinq ans. waaw ma ne con ma ne révision 2016 bi loolu la woon. loolu la woon donc sa révision 2016 laalul nombre de mandat. lu mu laal mooy durée du mandat et si vous prenez le président Macky Sall bii doon wax en tant que l'institution de la République pas chef de parti mi ngi woon ak euh, le l'ancien président du Burkina Faso Kaboré Kaboré oui lu mu wax Christian fii coow li bëri na fii coow li bëri na euh, ce dont il était question en 2016 parce qu'il l'a dit en c'est moins le nombre de mandats qui est réglé depuis longtemps que la durée. du mandat di passer du septennat bloqué septennat au quinquennat bloqué. Ouais. donc loolu la ñu changer la durée et décision conseil constitutionnel bi nga xam ni avis la gisoo fu ñu ci wax nombre. ça concerne la durée du mandat ñu ni mënoo ko dindi sept ans parce que da nga ko durée de non seulement. Mm-hmm. mais également c'est mun c'est intangible. Mm-hmm. donc le nombre n'a jamais changé le président l'a dit plusieurs fois et j'ose espérer et je suis toujours dans l'espoir nag le président de la République président Macky Sall pour mm-hmm. l'intérêt du Sénégal pour sàmm kàddu. dana ñëw wax ak sénégalais ne li ma waxoon fa laa nekk ba léegi je ne ferai pas de troisième mandat dinaa wut ko mu fi teg. Uh-huh. pour que régime am perdurer wala sénégalais yi tranché. Uh-huh. mais nag euh, Diallo dama lay wax benn affaire. Uh-huh. si par extraordinaire le conseil constitutionnel valide. Euh, la candidature du président Macky Sall. te warul woon dem ba di déposer candidature. parce que ay républicains la ñu aussi ah. les les sept magistrats qui sont tous nommés par le président de la république bu ñu ko valider affaire bi lu ci des mooy lan. Mhm. il faut aller aux urnes. même aujourd'hui l'opposition radicale au Sénégal euh, commence woon par le Gatsa Gatsa élection différentes tant que sont on dit on di aux primo-votants dem leen. Inscrire, ouais. pour dem voter donc on prévoit d'aller voter comme en 2012 ah. et pour cette raison là je pense que bu euh, eggee foofu les sénégalais qui avaient dit ñaar raaka la gis kenn ku bëgg a bërlu pour le feu rouge daañ ko rappeler alors surtout que 53 pour cent de la population sénégalaise enfin du fichier électoral n'a pas voté aux dernières élections nationales législatives abstention yi ñooñu lay ñaan nañu dugg ci biir affaire bi que j'appelle la majorité silencieuse